Salam alaikum wa rahmatullah man maay Pape Mbacké di frère c'est Jules Balde Junior maa ngi leen di nuyu santé, leen sant di remercier ci taxawaay bi ngeen taxaw Jules Balde Junior waaw Jules Baldé moom feebaram bi moom mun nañ ko xayma ci ay ba mois parce que depuis après combat bi la ko affaire bi daaneel du ma wax nag parce que avant combat bi sax dama koy woo demal entraînement su demee entraînement ñëw ja dama tànk yi day metti affaire yooyu ma ne ko da ngay tappale dangay dem entraînement par la force ba après combat bi daal si la ko affaire bi commencé dal muy dox su doxee cinquante mètres cent mètres toog affaire bi sonal ko ñu yóbbu ko hôpital Thiaroye bi ñu demee def foofu ay analyse scanner Euh, am na benn médecin bu ñuy wax docteur Guissé que je salue au passage ku baax la macha allah ba léegi nii nii nii mi koy suivre docteur Guissé moo ko doon traité ñu def ay analyse analyse yi génnee def nañ ay écho Doppler et tout ça donc euh, analyse yooyu noonu ak scanner yi moo génnee nii veine yi euh, sang bi daal ci veine yi ñoom ñoo bouché ñoom ñoo formé wu en caillou voilà les nak si lañ ko doon traité mais ñom biñu paré dañ il faut que ñu am ben professeur bu ko suivre parce que loolu mën na dañ ci kaw ñu def opération bi retirer cailloux yi wala ben traitement donc euh, par la suite si lañu envoyé professeur bu nek euh, fan don ko jox ay rendez-vous muy dem mais tantôt nak rendez-vous day story parce que rendez-vous un mois des fois mu nek deux mois donc affaire bi mu ma gissé mu empiré wu j'ai appelé son son son ami Boubacar ma ne ko Boubacar daal lii ma gënal daal mooy Abiboulaye rendez-vous mi dafa sori le mieux mooy ñu yóbbu woon ko clinique privée quoi parce que lii doyuma parce que li ma gis nii c'est c'est grave dem na ba yor ay békki mënatul dox voilà léegi ba médecin bi da ko recommandé woon ne bu mu doxati na nekk ci chaise et tout ça chaise roulante benn fauteuil roulant quoi léegi par la suite si la dem Fann si la Boubacar woote benn xaritam copain bi yóbbu ko Fann bi mu yóbbee Fann automatiquement dañ ko fa téye parce que dañ ne lii dafa garaaw déjà traitement bi mu doon jël rek euh, euh, garab yi dafa dafa dafa ëpp ci ci yaram bee tout sax donc si lañ ko commencé traité foofu def foofu d'autres analyses def ay analyses pendant cinq six jours donc ñoom aussi ñu ni feebar bi ñoom gis nañu il faut que ñu évacuer ko hémato hémato nag bi ñu xam ñoom ñu recommandé ñu hémato bu nekk Dantec malheureusement bi ñu demee Dantec ndeket Dantec amul hémato quoi euh, kii la am euh, labo la am hémato labo hémato la am donc si laa woo Boubacar ma indi ko mu ñëw fii mu fanaan fi ma woo Boubacar Boubacar ne ma am nañ hémato fële na le quoi euh, hôpital Dalal Jàmm actuellement nii foofu la ne foofu lañ koy suivre mu ngi jël foofu ay soins foofu. loolu moo taxoon mu doon demander tey ñi nga xamante ni tey ay c'est des autorités bàyyiwuma kenn nag donc di ci njëkkee nag. Euh, madame la première dame parce que moom mooy yaay sénégalais yi te gis naa ne peut-être que ni loxoom lum mu ci dugal mu sotti parce que gis naa lu mu def si saa saa Kajoor et bi mu defee saa Kajoor macha allah ñëpp nee nañ alhamdulilah donc ñu koy ñaan encore une fois su fekkee mun nañu si dimbali. Euh, mu mu dimbali ñu ci ñu ñu ñu faj Abibulaay évacuer ko parce que soxla na ko trop trop trop parce que risque yi moo xamante ni tey Fann waxoon nañ ko mënuma ko sax euh, wax ci ci ci télé bi te bon dafa xaw a sensible aussi mais am na ay risques yu grave yoo xamante ni Abiboulaye mi ngi koy mi ngi koy causé waaw mais maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn man su may wootee pikin tu may njëkkee dama ko njëkkee ci sama papa euh, sama yaay samay frère euh, sama sama frère yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn ñoom Cissé moo Cissé ak euh, ñoom Ibrahima Sogu bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn. maa ngi woo ñëpp ñi nga xamante ni Jules Baldé Junior xam nga ko sa nit la ma ngi lay woo loo ci mën a def nga dimbali ñu ci te xam ni soxla na ko du man maa ko soxla du keneen na ko soxla Jules Baldé Junior bi nga xam ne soutien de famille la famille am instant yi nii dafa paralysé parce que moom moo leen doon jàppale te actuellement nii moom mi ngi ci fauteuil roulant donc mënul mënul leen jàppale maa ngi leen di ñaan su fekkee mun ngeen ko jàppale ngeen jàppale ko maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tey Pikine ñëpp kenn nañ pour pour pour jàppale Jules Baldé Junior. man la Ameth Sagna di mag si Jules Baldé Junior ñu gën koo xam si Habibou Laye maa moom ñoo bokk ndey ak baay waaye moom feebaram bi léegi fi mu toll nii am na un an instant yi nii ndimbal rek la ñuy ut kuñ ko jàppalee rek faj ko te yàlla rek a tax moom la ñuy ut. ñu ngi woo ministre Matar Ba ñu ngi woo Marème Faye Sall ñu ngi woo Macky Sall ñu ngi woo autorité yëpp. yi nekk biir Pikine nag yi nekk feneen tamit yëpp ñu ngi leen di woo di gërëm waa Pikine bu baax mooy xay tamit nekk fii maa ngi leen di gërëm bu baax ndax parce que ñoom tamit jàpp nañ si chaque jour guddeeg bëccëg instant yi nelawuñu ñu si sonn ñun ñii ñoom ñooñu si raw téeméer junni yoon. waaw fi ñu toll moom ñun bu fekkoon amoon naa moyen bi moom kon média bi kon média média du ko jël kon maa jël bi faj ko. wala ne loxo eggu si digg ko nañ bëgg Sénégal ñëpp monde bi Sénégal ñëpp monde fu way monde nek rek monde bi fu ni way nek rek am di sant Jules de Junior wala Jules Baldé bu mag rek comprendre du sant wala nga sant wa Pikine rek dugal si sa loxo quoi tout le monde ñun ñëpp dugal seen loxo wa mom neer yi ñoo fat mo lay wacc ci suuf moo fat neer yi ñoo fat du dox bu baax bu doxee fi touté rek day sonu tok lol feer dafa metti quoi té paré moy responsabilité moy seen waa kër mo leen yor. te si bëre bi lay yaakaar bu feebaree amul yëngutu si bëre sin waa dina metti ndop top si ñoom waaw. ku waaye dimbali ba laajee Pambak di nga ko jox Pambak da boo batee Pambak mu ngal deux ans mu nekk si lu mu am lu mu ah, ñu am yëpp ñu ngi ko siy def boo batee waaw fi mu toll moom ñu mën a dimbali dimbali ma Sall dimbali ñu ndax kii avenir la jàngal na bégal waa Pikine waaw ñu woo Tyson woo Baboy Eumeu sen Boy Niang Ama sox waaw Balla gay Modou comprend Bombardier ñëpp ñu ngi di woo te Bombardier ko ñu ngi ñu ngi koy jaale waat magam bi gaañu ñu ngi ko siy jaal di ko masawu xam ne àdduna noonu la tey lii rek tey kër gi lay dugg su mu dugg beneen kër kenn mënu mënul jaas ndax yàlla mooy soxla bu yàlla soxlaa kenn mënu si dara ñu ngi koy jaale yàlla na ko yàlla may xolu muñ yàlla nay saraxam yàgg yàgg si kawam si papa ja pap ja yàlla na ko yàlla xare ajjana fii daw si